الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا اليوم الذي تصومونه ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم
أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه رواه بخاري ومسلم واللفظ له هذا الحديث أيها الأحباب أصل عند علماء عند العلماء في استحباب صوم يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم وهو يوافق يوم الاثنين القادم mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi sunu xutba mooy asura durusun wa ibar mooy bésëb tam xarit ay njàng ay bind lañ ci war a jële ak ay waar bésëb tam xarit njàngale la war a doon ci nun ak waaraate jële nañ ci abdullah ibnu abbas mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu bàyyi ko màkka dugg Medine fekk na yahuud yi di woor bisab tamxarit mu laaj leen waaw yéen bés bii ngeen di woor lu ko waral ñu daal di koy tontu ne ko bés bu màgg la haza yawmun azim anjallahu fihi muusa ci la yàlla subhaanahu wa taala musale yonent boobu tudd Muusa ak ay nitam ci la yàlla labale noon bu rëy boobu di firawna ak ay nitam fa saamahu Muusa yonent yàlla Muusa woor bis boobu ndax sant yàlla tabaraka wa taala mu ne nun waa Medina looloo tax nu koy woor yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di leen tontu ne leen fa nahnu ahaqu wa awla bi Muusa ñun dey ñun jullit yi ñoo leen gën a yey ci Muusa maanaam nun noo leen gën a bokk ak Muusa yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di koy woor mu daal di sant jullit ñi ne leen nan ko woor hadis boobu mbokk yi ma ngi ca Bukhari 399 43 page ma ngi ca muslim baat yi nag baati muslim la mu ne hadis bi nekk sunu kanam cosaan la bu boroom xam-xam yi teg seen tànk ne sopp nanu woor bisab tamxarit muy bisu fukkeel ci weer woowu ñuy wax muharram muy tolloo ren ci weer wi nu nekk ci altine bii di ñëw mu ne fa huwa yawmun azim bés la bu màgg muy bésab tamxarit lu tax muy bés bu màgg anja allahu fihi muusa ci la yàlla subhanahu wa taala sëwee musalee yonentam boobu tudd Muusa alayhi salaam ak ay nitam ci la yàlla labale noon bu mag boobu di firawn looloo tax Muusa daa di koy woor ndax sant yàlla lan moo waraloon yàlla subhaanahu wa taala musal Muusa daa di labal firawna xam ngeen ne Moussa ab yonent la yàllaa ko yónni ci banu Israil mu fekk fa kàccoor boobu di Firawna nga xam ne kenn gënu koo kàccoore ci àdduna ndax li mu boole li mu wootewu ci boppam ku ko wootewu rek ci kàccoor yi nga bokk ci saay-saay si nga bokk dajale nit ñi amoo lenn loo leen doo di wax lu dul ne ana rabbukumul aala yàlla na ko nettali fa xashara fa naada fa qaala ana rabbukumul aala dajale na doomu aadama yëpp ba yëpp daje amul lenn lu mu leen di doyee lu dul man maay yàlla ju màgg ji bal sax yemul ci loolu daf leen ne ku ma déggati fi nga ni yàlla am na danaa ko jëflanteeg yow maa alimtu lakum min ilahin xayri xamaluma leen yàllaa ngi fi ku dul man ku fi waxati yàllaa ngi fi dinaa ko jëflante ak yow mbokk yi ibnu abbas nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam woor na bis boobu wa amara bi siyaami mu joxe ndigal ne jullit yi nan ko woor istihbaaban ndax sopp nañ ko mutaabaatun li nabiyillahi Muusa moom yonent bi alayhi salaatu salaam def cee roy Muusa ndax santale yàlla Muusa loolu tax bés yi bëccëg yi ay bëccëg yi jaami yàlla la comme niñ koy baaxee di wax jamono ju nekk yàllaa nu bëgg jamono bu dem mu indil ñu beneen bëccëg bu dem mu indil ñu beneen guddi gu dem mu indil ñu beneen pour tiyaaba yi di yokk kañ lañu jóge ci koor ñu ci doon ut guddig laylatul qadr mu jeex ñu song kor yi dugg tabaski nekk ci fukki fan yi nga xam ne moo gën ci bis yi fukki fan ya yow mu arafa nekk fa tabaski paase tey noo ngi song muharram muy bëccëg boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ko woor sant jullit ñi nan ko woor ndax lan min baabi muqaabalati niam bi shukri fi awqaatin tudij tujaddiduha ndax topp yonent yàlla Muusa ci koor gum doon woor ndax sant boroomam jalla jalaaluhu ibnu abbas nee na wa qad su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an siyaami yowmu ashura yonent bi laaj nañ ko waaw yow yonent woor bëccëg boobu di ashura lu ci doomu aadama di am comme tiyaaba mu ne maa alimtu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam saama yowman yatlubu fadlahu ala al ayaami illa hada al yowm wala shahra wala shahran illa hada shahr yaani shahru ramadan rawahu muslim ibnu abbas dañ ko laaj ne ko waaye yonente alayhi salaatu wassalaam ban bëccëg la gënoon a bëgg ci woor mu ne man ibnu abbas day gisuma bés boo xam ne yonente alayhi salaatu wassalaam bëgg na ko woor ba xiirtal ci nit ñi bu wuuteeg muharram bëgg naa woor weer woo xam ne da koy woor ba mu jeex bu raw ramadaan kon weer yi yonent weeru koor la ci gënoon a bëgg a woor bëccëg yi bisu tamxarit la ci gënoon a bëgg a woor ñëw na ci buxaari mu ne maa raaytu nabi sallallahu alayhi wa sallam yataharra siyaama yawmin fadluhu ala gayri إلا هذا اليوم أي يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان mu ne moom Ibnu Abbas mu ne ma gisuma yonent alayhi salaatu wa salaam di woor bëccëg bu gën ci bëccëg yi lu dul bisab Aasuraa la ak weer wi mu jublu ci weeru koor mu ne fa haza yawmun faariqun fi taarixi albashari la bis la boo xam ne histoire daf ko bind du ko fàtte lu tax ndax bés la boo xam ne ci la yàlla subhaanahu wa taala muccale yonent yàlla Muusa alayhi salaam bu ñëwee ci njàng yu ñuy jëlee ak waaraate yu ñuy jëlee ci bisab tamxarit ak ay maani yuñ ciy jëlee yoo xam ne day dolli doomu aadama ngëm almaani al imaniya al mustafada min hadha al yawm yoo xam ne ab jullit dana ci dolleeku jële ci ngëm yàlla tabaraka wa taala ci bëccëgub tam xarit mbokk yi danañ gis ne ab jullit war na yittewoo jaamu yàlla ab jullit war na xër ci jaamu yàlla lu tax yonent alayhi salaatu wasalaam dafa ne cëpp Madina rek mu fekk ñuy woor bi mu leen fekkee ñuy woor li mu njëkk a def mooy def leen a laaj waaw yéen lii ngeen di woor lu ko waral gis nga ndax yittewoo diine yittewoo tiyaaba ku bëgg yàlla diine daf lay ñor ba laaj ak mbirum diine daf lay yittewoo mu ne nit ku bëgg yàlla ku bëgg xam-xam ku bëgg diine da ngay jël jikko yonent bi loolu ñor la foo wàcc foo dem li la njëkk a yitteel mooy ñama fa fekk nan la ñuy jaamoo yàlla fan la ñuy jaamoo yàlla boo ne cëpp cib dëkk balaa ngay fanaan war nga laajte jàkka ji fan la nekk ñi baax ñi ci dëkk bi fan lañ nekk nee na nit ku baax noonu nga war a mel ndax yonent loolu la def dafa ne cëpp fekk ñuy war rek mu laaj leen waaye gis nga ñun tey kenn ci ñun bu tukkee bu dee cëpp cib dëkk li muy njëkk a xool mooy immeuble yi li muy njëkk a xool mooy tali yi li muy njëkk a xool mooy place publique yi li muy njëkk a xool mooy place yi nga xam ne dañ ko orné rafetal ko ndax taari àdduna amma rasul ba mu ne cëpp Madina xoolu loolu dafa jékki-jékki mu ne Abu Bakrin dëkk bi dëkk bu baax la Abu Bakar ne ko yonent lu tax nga wax loolu mu ne déggoo xale yi di foo ci mbedd yi ni ñuy woowante seen tur yi ñoo nga naan Suhayl ñoo nga naan Yaasir mu ne dëkk bi dëkk bu baax la parce que turi waa dëkk bi tur yu baax la gis nga kon yonent ndeke ku daan bàyyi xel mbir yu bare la moo tax ba mu leen gisee ñuy woor rek mu daal leen di laaj fal insaan idan ayuha al ahbab ida zahaba ila makanin jadid yulfit nazarahu ma yushgilu qalbu wa yahtammu bi nit su demee ci dëkk ci barab li mu war a njëkk a def mooy def attention ci ay li muy gis wala li muy dégg mu yittewoo loolu am na ci nit ñi ñoo xam ne bu ñu duggee ci dëkk palaasu fawukaay yi caaxaanukaay yi la ñuy njëkk a xool waaye am na ci nit ñi bu ñu demee ci dëkk la ñuy njëkk a xool mooy fan la ñuy jaamoo yàlla fii ndax fii am na fu ñuy jaamoo yàlla am na ci nit ñi ñoo xam ne sax du ñu tukki dem dëkk bu amul jàkk imam malik da doon wax ne ana laa uqiimu bi baladin yusabbu fiha ashaabu rasulillah man imaamu malik du ma tukki dëkk boo xam ne dañ fay saaga sahaaba yonent bi du ma fa dem mukk man malik gis nga ndax yittewoo diine man du ma tukki dëkk boo xam ne dañ fay saaga sahaaba yonent bi loolu tey ci weer wi nu nekk weer la boo xam ne tey ku fi jóge woon dem ci yenn dëkk yi boo amee ngëm yàlla gu dëgg soo moytul doo ñibbisi bi da ngay dee wala ñu rey la ndax weer wi lañ ciy saaga sahaaba yonent yi kenn xamul nu mu toll kii da Abu Bakr Omar Ousmane Aïcha ñeneen ñi ci weer wii am na ñoo xam ne weer wii bidaa yi gën a garaaw ci àdduna ci weer wii la xew muy weeru muharram te pourtant weeru sant yàlla la woon weeru jaamu yàlla xoolal ñaar ñii sunu borom subhanahu wa taala ci màggal bisub tamxarit wax ñu bis bu rëy la pour tirer sunu attention yàlla daf ñu jàngal ñaari mbir ci bëccëg bii mu nuy bàyyiloo xel waa jooju tuddoon firawna mu ne firawn wastakbara dafa rëy rëy lu huwa wa junuduhu fi l ard bi gayri lxaq wa zannu annahum ilayna la yurjaun yàlla nee na firawna dafa ngand ngandlu rëy rëylu romb ñëpp ba diir yàlla mbagg ne may yàlla yemu ci moom ak ay soldaaram ñu jàpp ne moom firawna mu jàpp mook armeem ak dooleem moo tax ñu bari ci buur yi yenn saa yi doomu aadama dafa gaaw a bew da ngay gersu gis li la wër ci ay arme soo joxee ndigal ñu def ko soo teree ñu bàyyi soo joxoñee ñu dagg loo wax ñu def soo amul ngëm yàlla loolu daf lay fuyloo nga bey nga bew nga defa ne yow dootoo dem ci yàlla wala yàlla sax yow yaa ko mën firaaw na looloo ko dal gis boppam ni mu toll gis dooleem gis li ko wër moom ak armée mu jàpp ne moom du bàyyi nguur gi dee dem ci yàlla yàlla nee na fa axaznaahu wa junuudahu fa nabaznaahum fi lyammi fanzur kayfa kaana aqibatu zalimin ñaari mbir ñaari baat ci alquran war nañ ko bàyyi xel firawna yàlla nee na nabaznaahu fi lyammi muusa man maa wax yaayam boo ragalee boo tiitee aqzi fiihi fi taabuut faqzi fiihi fi lyam soo ragalee yow yaayam dugal ko ci kees nga dugal ko ci ndox mi ñoom ñaar ñëpp ndox lañ leen dugal firawna fa nabaznaahu fi lyammi muusa yàlla nee na maa ne yaayam faqzi fiihi fi lyammi sànni ko ci ndox mi fan la mbir yi nekk mooy ñoom ñaar keroog bañ leen di dugal ci ndox mi kee ponkal la bu ne mooy yàlla ndax doole kii liir la boo xam ne mënul dara mënul sax jóg toog liir bu tooy xepp ñoom ñaar ñëpp ñu tëmbal leen ci ndox mi kon mbir mi kan la kee bañ koy dugal ci ndox mi ponkal la mu am doole armée bi ànd ak moom kenn desul kii biñ koy dugal ci ndox mi ci kees lañ ko dugal mu tëdd ñu defal ko ay laltaay mu tëdd kon mbir mi fan la nekk kon yàlla la ko ànd ak yàlla bu mu ragal man kaana ma allahi fala yaxaaf xoolal kii ci berso lañ ko dugal tëral ko ci kees gi sànni ko ci géej gi kee armée bi la àndal ñu xotti géej gi mu dugg yàlla nee na fa nabaznaahu wa junuudahu fil yammi ñoom ñaar ñëpp mook soldaar yeeg ñamu àndaloon kenn génnul bés boobu mooy bésub asura moo tax ab jullit bu ko yàlla mayee xéewal yàlla may ko ndam dafa war a sant yàlla waaye warul tey da nga gis jullit bu takk soxna yàlla may ko doom au lieu mu sant yàlla muy mooy yàlla dañ ma doon nettali barki démb benn mariage boo xam ne ñaar ñiy sëy ñaar ñii sëy papa ji ak yaay ji ñoo bokk ndey ak baay maanaam kee dafa am doom kii am doom ñoom ñaar seen doom sëy loolu dagan na ñaar ñu bokk ndey ak baay seeni doom mën nañoo sëy ku góor ki am doom bu jigéen ku jigéen ki am doom bu góor ñoom ñaar ñu sëy ñu takk sëy bi bi ñu takkee sëy bi xale yu jigéen yi commencé xeesal daan ne ñun bisu xew bi ñun ñëpp nañu weex tal ñu commencé jouru mariage bi ci guddi gi yaayu borom kër gi daal di faatu bisu mariage bi deux jours avant ñuy takk sëy bi comme sëy bi samedi la ak dimanche dimanche mooy programme bu mag bi ñu tëj maire bu màgget bi ci biir néeg bi samedi ak dimanche dimanche ci guddi ñu ubbi néeg bi fekk maire bi dee na xanaa mariage boobu dafa waroon arrêté ah ñu jël maire bi rawale ko génne ko jàkk yóbbu ko jàkk pour mën a def seen programme ba pare ñu ne kenn du ko suul lu dul lundi fekk pour pour programme bi jeex doomam téléphoné ne bu mu fi fanaan nañ ko suul allahu akbar waa kër ga moom far xale bu jigéen bay sëyi kooku yaayam moo faatu waaye ñu ngay musique bal sax ñooñu yàq nañ añ ceeb ba mariage ba yekk nañ añ indi ndaw si fi mu faatoo boole kook seeni kanet ci ngoon gi ñu def ay caakiri di ko séddale ci koñ bi naan sunu goro dëjëm bi dafa neex gis ngeen moo tax ku jaamul yàlla perte nga ku jaamul yàlla bisub jaamu yàlla bis doomu aadama bu ko yàlla dafa leen xéewal dafa war a sant Moussa bi ko yàlla rëccalee ci firawna moomu yaakaar ngeen ne firawna Moussa amoon na doole boo xam ne mën na téye firawna ndax Moussa amoon na ko waaye xoolal yàlla moo génne Moussa ni ko génnal Moussa génn firawna daal di koy topp bi Moussa ñëwee ba sës ci géej gi ak ñi mu àndaloon mënatul dem moom Moussa ak ña mu àndaloon ndeysaan Moussa mi ngi jël yat bi di ko dóor ci géej gi ñi mu àndaloon comme amuñu ngëm seen ngëm yàlla dafa faible dafa suufee ñu ngi naan Moussa yow yaa ngi war a xeex ak Firawna sa yat bi ngay dóor géej gi lan la la géej gi def lan la yàlla wax yàlla Moussa ne jëlal sa yat bi nga dóor ko ci géej gi Moussa jël yat bi dóor ko ci géej gi géej gi xotteeku yàlla mu ne Moussa yaag ñi nga àndal jàll leen ci bunt bi ngeen dem ñu jaari jaar xotteeku Moussa ba mu génnee mu seen Firawna dugg moom dafa noonu dafay jàpp ci ñaari catu géej gi di ko tëj yàlla ne ko Moussa bàyyil géej gi nga dem sa yoon wattrikul bahra rahwa bàyyil géej gi demal sa yoon pour wan ne la yàlla la du doomu aadama bi firawna duggee yàlla mu ne fa axaznaahu fa nabasnaahu fil yammi wa huwa mulim ci beneen aay yàlla mu ne fanzur kayfa kaana aqibatu zalimin xoolal rek ñi may tooñ bis bu nekk fu may mujjee ak ñoom moo tax kuy tooñ yàlla da ngaa xamul ixwatal iman bisub asura moo ngi noonu sunu kanam di nekk altine sunu yonente alayhi salaatu wasalaam lim ci digle mooy woor ku yàlla namme mbaax mooy kuy xeeñtu sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam te mooy woor neuvième jour ak dixième jour yàlla nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko alhamdulillahi waxda wala na'budu ghayrah muxlisiina lahu diin walaw kariha alkaafiruun ibaadallah mbokk yi bisab tam xarit du bis bu ñu war a dundal bidaa te war nañoo xeex ci sunu dund ba bidaa denc li ëpp ci réew mi ci tam xarit ay bidaa kese la ñuy def mooy def ay azkaar def ay salaat ay julli def ay ñaan yooyu yëpp dara wéru ci kenn du la ci indil ci téere yu wér yi hadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi digle ne guddi tam xarit jàng leen ñaan bi wala julli leen julli gii wala lekk leen palaatu sangam bu ngeen paree def leen nangam loolu yëpp dara wéru ci su fekkee raay bopp jirim loolu bés bu nekk lañ ko bëgg ci ab jullit su fekkee sangu bés bu nekk lañ ko bëgg ci ab jullit su fekkee ziyaara ji boroom xam-xam bés bu nekk lañ ko bëgg ci ab jullit saa yoo jagleelee benn jaamu yàlla benn bis loolu mooy bidaa mooy li ñuy def bisub tamxarit dajaloo yenn saa ñu bind ay saafara surtout aaya boobu di wax qul naam wa antum daaxiruun da ngay gis ku ko bind ci kayit bu ndaw def ko ci dank cere lekk ñu bind ko ci ay àlliwe ngoon bu nekk nga gis ñu dem kër yi këru sëriñ si di tànq ñëw ah diw loolu ci bidaa la bokk bokkul ci xatam xarit bokkul ci diine li ci gën a doy waar nag mooy nag yi ñuy jënd takk ci koñ yi di ko bokk di saam di rey ñëw di noos xanaa xamu leen ne bisub rey bisub tam xarit ci la ñu rey Seydina Xuseyn ibnu Ali bisub tam xarit la ñu rey Xuseyn kan mooy Xuseyn Ali mooy papaam kan mooy yaayam Fatimatu bintu rasulillah ñu rey ko ca Karbala ca Karbala lañ ko reyee moo ak famille yonent bi yépp ci bisub tam xarit lañ leen rey kon naka la ci ab jullit di feetoo def ay cere suñu lekkee ba pare jal digg kër gi jal ngandum ay jal jël bool yi daanaka tamxarit bu gee paase da ngay dégg ay bëm nga defe ne ay kënuñu la ñuy tiire ay kënu fekk ay bool yu ñuy dóor la loolu bidaa la bi ci gën a ruslu mooy def cere ci digg bool boobu bàyyi ko ci digg kër gi suñu xëyee suba di sëlmu soo sëlma ba pare ñu ne la xoolal jant bi Faatimata Bintu moo nekk ci jant bi di fóot jant bi tàngaay bi kan moo fa mën a nekk ñun ñu ngi nii tàng bay bëgg a dee suñu tàngaay fii lan moo ko waral du jant bi ñu ne Faatimata Bintu mooy fóot moo ngi ci weer wi loolu moo ngi ci jant bi loolu ay bidaa la mbokk yi te bidaa day yàq diine yonent bi santaane wu ci julli yonent bi santaane wu ci ñaan beneen bi gën a doy waar mooy war nga yëg yow jullit sa at yi ñu ngi wàññeeku ndax at bu bees dugg na jullit ñi seen at mu ngi tàmbalee muharram fi mu nekk ñu ngi ci jan bu doon ci tubaab la ñu ne ñu ngi ci janvier li gën a doy waar nag mooy jaxase gi ñuy jaxase ashura ak première muharram encore ati nit ñi dañuy jàpp ne bisub muharram moom mooy premier janvier ci islam déedéet ashura lañ wax ashura mooy am na fukki fan muharram am na fukki fan mooy bisub asura mooy dajeg lëndi fukki fan bi bisub fukki fan la waaye lan moo tax mooy ci la yàlla subhanahu wa taala rëccale woon Moussa même gaalu yonent yàlla nuux keroog ba yàlla di labal adduna bi yàlla ne nuux wasna'il fulka bi ayunina nuux defar gaal gi ba pare yàlla mu ne ko jëlal ñaar nga dugal ci bi gaal gi déparé di wër ak asamaan di sotti ndox suuf di génne ndox ñëpp lab gaal gi daw daw daw ba teer ci benn place buñ ne juudi bis boobu bisu tam xarit la woon bisu tam xarit la gaal ga teer yonent yàlla nuux lan la doon def benn pittax bu mu àndaloon moom la doon wax demal nga xoolal ma ndax ndox maa ngi ñeer ndax am na fu ñu mën a dëkk ci biir gaal gi lañ dëkk pittax bi bu xëyee day naaw dem deuxième jour bi mu génnee pitax bi ñëwaat dafa indil nuux benn branche su garab nuux xam ne ndox maa ngi wàññeeku mu xëyaat ne ko demal ci pitax bi dem quatrième jour bu mu ñëwee tànk yi dafa taq ban nuux xam ne ndox mi mu ngi ñeer pitax boobu ban boobu takkoon ci tànk yi mu xonq moo tax gis nga am na ci pitax yoo xam ne seen tànk yi dañoo xonq loolu moo waral xonkaay bi ban boobu takkoon ci moom la ñuy wax xawma picc ramatu xawma piccu mariama piccax boobu kon bisub tamxarit dafa am ay événement yu bëri yu ci am ci islam moo tax mu nekk bëccëg sant yàlla waaw waaye boo demee ci ñenn ñi ñu ne laana annabi nuuhu laana kaa ɗo joofnooka min tawi ɗon yimɓe ina mbaɗa ina mbaɗa ko heddi ko haaltaki min tawi ɗon yimɓe ina mbaɗa wona goonga sabu ɗum alano ɗum wona goonga ɗum alano oɗon saaha ko annabi nuh tan woni e leƴƴi gonnoɗi e nder laana ka hono no yimɓe mbiyata nde laana nuhu teeri annabi nuh no yaltiɗi koko werti wudere mum ina waɗa ɗon wona goonga ɗum addi hannde gude berteteɗe e nder jamaji ɗi ɓe mbi ɗum ɗon wona goonga bandiraɓe mine gaalu yonenti allah nuhu momo teere gaalga dafa teer ñu fekk fa ay nit yullal benn mbalaan di di di loolu moom xam ngeen ne mënta nekk ndax gaal ga ba mu teere ci montagne la teer montagne baa nga tudd juudi nuux daal di génne mbooloo mi bi bi mu yëgee ne ndox mi wàcc na mu doog a génne mbooloo mi moo tax ñu ne nuux mooy deuxième yonent kon mbokk jullit yi bisub tam xarit yonent alayhi salaatu wasalaam lim ñu ci jàngal mooy ñu woor neuvième jour ak dixième jour liñ ciy def tey ci àddina bi nga gis ay nit yoo xam dañuy jël ay jaas yi di dóor seen bopp di wane ne bisub tey la ñu reyoon waa kër yonent bi loolu yonent bi santaane wu ko am na ci dëkk yoo xam ne tey ay yet la ñuy jël ay jaasi jaar ci mbedd yi di dóor seen bopp xale yi ndaw yi sax dañ leen di defal ay jaasi pour ñuy dóor seen bopp am na ci ñoo xam ne sax dañuy xaru ndax di wax ne waa kër yonent bi dañ leen a rayoon kon ñun tamit dañoo war a dee tey déedéet waaye ña rayoon waa kër yonent bi tamit kenn àndul ak ñoom ndax lu bon lañ def waaye yonent bi xamoon na ne sëtam bi ay nit a ngi koy fexeel danañ ko rey moo tax jooy na ko balaa muy faatu moom yonent alayhi salaatu wasalaam lépp li xew ci umma bi yàlla xamal na ko yonent balaa yonent génn àdduna yonent yëg na ci montagne Uhud montagne bi yëngatu yonent bi ne montagne bi dalal ab yonent moo nekk sa kaw ak xalifa yonent bi ak ñaar ñuy shahid moom la woon ak Aboubacar Umar ak Ousmane xalifa bi mooy kan mooy uba Aboubacar ñaar ñuy shahid ñi mooy kan mooy Omar ak Ousmane dañ leen a rey ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon bisu tam xarit mbokk yi bisu jaamu yàlla la du bisu dundal bidaa nanu góorgóorlu sunu dund ñu dind ci bidaa bidaa yomb naa xam mooy lii may def ndax yonent bi defoon na ko ñu ne la déedéet nga bàyyi ko lii ñuy def ndax hadis ñëw na ci wala alquran wax na ci ñu ne la déedéet nga bàyyi naka la ab julit di reeree guddi yàlla may ko mu lekk ba biiram fees amul lenn lu muy def di ñaan bool bool bool la ñuy ñaan wala yàlla la ñuy ñaan uddu ullah aw uddu urrahman ayyamma taddu fa lahu asmaul husna bool la ñuy ñaan wala yàlla yàlla la ñuy ñaan kuy ñaan ñaanal yàlla kenn du ñaan ay bool kenn du bokkaale ak a rafetoon nga reer ba suur nga julli ñaari rakk yëkkati yàlla say loxo jéggalu ko ci at bi passé li nga def ñaan ko mu defal la sabaat ci at bu bees bii nga nekk waaye yëkkati ay bool di yokk ay bakkaar xëy suba tusngalu di xool jant bi di def ay askar yoo xam ne sawaay ah da nga ci gis koo xam ne sax dañ naan defal junni lixlaas junni waa ji yor kurus naan lixlaas lixlaas lixlaas du xam sax lan mooy lixlaas waaw li ci gis kilifa laa wax bu yor kurus soo ko ne looy def mu ne lix ay lixlaas laay def dama ciy def ñetti junni lixlaas soo dégloo ndànk nga dégg mu naan lixlaas lixlaas lixlaas lixlaas mooy lan wala nga dégg ñu ne nañ góorgóorlu ñu jàng faatiha bu sell faatiha bu sellul fu mu am fan la faatiha bu sellul am ay mbir la yoo xam ne kenn xamul dëkk bi tey parce que nit ñi xamuñu diine jàpp nañ ne diine moom inna wajanna abaana ala umma fekk nañ sunuy papa ak sunuy yaay ñuy def rek ñun tam danoo war a def déedéet diine dafa tegu ci ay texte alquran la ak sunna yonent bi mooy jàngale diine su nee lii nan ko def ñu def su nee lii bàyyi leen ñu bàyyi ko musidɓe fulɓe caggal yettude allah e julde e nelaɗo men mouhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam khutba men woni asura durusun wa ibar woni ñalawma haran so tawi ko noon wiya toon ga amen min wiyata ko haran holko addi dande haran ɓe wimo harani o wonta har jiya mawɗo o ñama ha o ranko juuleyde fajiri jama saabu ɓe wimo sa harani a wonta har ɗum ɗon ko mawɓe ɓe ɓe funtanno sukaɓe ɓe ɓe wi hitande nde nan yaha sa harano e nden hitande a wonta har par ce que hitande nde yeehi hitande hesnde ari ɗum tagi ɓe inniri dande nde haran sa harano e ndo ɗo hitande a wonta har hitande nde nan yaha hitande hesnde ari joni noon an sa nani e harani hande komi foɗɗo ñamde hami haara ɓe ƴetta ayeji alquran ɓe waɗay lacciri ɓe waɗay kayit qul nam wa antum dahiluna waɗa e longere lacciri ñama a ƴakka holne neɗo ƴakkirta alquran allah wiya quran taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa e hema an muhammad oɗo alquran allah tellinani e ma pour malkiseɗa ala ko pour wuura kono alquran arani pour na ñaame alani pour yimɓe ina looto ɗum ala arani pour yimɓe ina moomo ari ke pour yimɓe yoɓe wuurdiini ɗum tagi e alqur'an a tawat daade ɗiɗi yawman saqilan e qawlan saqilan ɗeɗon daade ko daade ɗiɗi alqur'an ala goɗɗo yawman saqil qawlan saqil sa yiɗi dandude e yawman saqil jaggu e qawlan saqil alqur'an ñaari kese ñaari baat rek mo ñëw ci alqur'an yawman saqilan ak qawlan saqilan yowman saqil mooy bis bu diis qawlan saqil mooy wax ju diis soo bëggee rëcc ci bis bu diis jàppal ci wax ju diis mooy alquran soo bëggee rëcc ci yowmal qiyam jàppal ci alquran mu ne yàlla mu ne qawlan saqil yowman saqil bii mooy musal nit ñi ci bee haaraan ndeke wana ñalawma bidaaji ko ñalawma sunna oɗon ñalawma nelaaɗo ummima makka o ari madina o tawi yahudan ina hoora oɗon ñalawma nder medine o wiɓe holko tagi oɗon koora ay ko namdiɗoɓe holko tagi oɗon koora ɓe mbimo minen kat min koorat saabu annabi muusa o hooranno oɗo ñalawma sabu ko heen allah dandunomo allah lepti gaño makko woni firauna joni nelaɗo andi holko tagi eɓe hoora o wiɓe ko min ɓuri on handude e muusa muusa ko annabi komi annabi allah neli mo neli kam ko muusa adduno ko ko min ari mbiɗa timmina ko min ɓuri handude e muusa inchallah oɗo ñalawma mami hoor ɗum o yamiri julɓe ɓe yo koor ɗum tagi yimɓe ɓe koɓe foti wadde e ñalawma haran woni korka tan ala goɗɗum lotade en memde hoore jirim alyatim mo bamum maayi sakkade en ga julde en ga janngude en askaruji ko hay goto anda ñamde ga lacciri en wadde ɗum ɗon fof bandiraɓe ala e diine nelaɗo yamirani te juulɗo woni mo ganduɗa o ƴeewat holko nelaɗo yamiri o waɗi o waɗa o ƴeewa holko nelaɗo yamiri yimɓe yo woppu o woppa yo allah hollu en goonga o arsigna e gindewen allahumma arina alhaqa haqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba allahumma ya muthabbit alqulub thabbit qulubana ala taatik allahumma fa nasaluka أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله dogal nag xutba bi jeex na dogal